jaañ jaañ yëngali xew ma ne jaañ ndax yëngali xew émission émission émission Oustaz Modou Fall bi seetaan nu dégg nga laas jaañ xamuñu def demal nga seetaan ko léegi barkew mal xaaba la kawara jaañ sama diggante yow li nga tëgg te su te su te su ko mu ni foofu foofu li mu li Oustaz wax fa laa jëm jaañ nee naa la barke bal xaamal ak bar sama diggante ak yow juru ñuy baante Oustaz Modou Fall nee na bépp góor boo xam ne yëkkati nga xaalis nii ñu ko jàkkatee ko may ko sa coro ah dina la ci duma barke bal xaamal ak bar lan moom Oustaz day lan lan Oustaz day lan hmm, hmm, hmm. jaañ loolu dëgg barke mal xaamal ak jaan ñuy baante jaañ man maa bëggoon jaañ sora jaañ jaañ sa maam moo njëkk a indi suuf ci àdduna de barke mal xaamal ak jaañ léegi bàyyantee tutun xaalis nga ma doon ñaan ñoom su problème bàyyante oustaz Modou Fall nee na ku yor sas coro do moom boo ko mayee yàlla dina la ci laal waaw waaw léegi nañ nañ ko nañ ko firme loolu oustaz wax ñu ñu commencé waan ndoxaan mi ndoxaan na seen doog man non Diagne da ngay fen barke balkaama lakk ba Diagne yow Diagne ñaata ñaata paire daal laa la jënd Diagne yow amoo problème moom tudd amoo problème mu ndékki jënd ma jëndal la mburu mburu bu ndaw fukki dërëm may na sukki dërëm jaay see daal la dëggut ma yóbbu la ci ci ci ci booy bi defar fii daal yi ñu defaral la jaan yow amoo mu cité ngoos yow xam nga say balcon daa ngand cité ngoos ma dem ci kii nu mu tuddati booy booy boobu di ñëw booy bi mu mu ñëwal la cité gauche bu ngand ñu jox la barke mal xaama lakk na jaan yow ñaata laa def ci yow jaan sa ndaay <laughs> ci sedd bi nii bi ñu amee problème mu problème mu jaaru lu ma lijjanti saaku këriñ laa leen jëndal seet mille cinq cent indi ko sa kër sandaay sa ñuy jaaru jaañ jaañ li ma defal bëri na de bidon ndox yi ma doon dugal bidon yi ma doon jënd bidon cent franc ci sareetu mbaam mi jaañ da ngay baaxanteeg man Oustaz Modou Fall Oustaz Modou Fall danoon nar a yàqal rek xam <laughs> sa jaañ jaañ jaañ mi nen na man tu ba gënt oustaz oustaz Modou Fall nag li mu wax nii barke bal xaabal ak bar dañ ko xoolaat ndax ñu góor ñu ñu bëri ci lan nar a fase <laughs> waaw waaw bépp góor boo xam mayu jigéen xaalis ndaw si boo muy ful day génn sa mbaay sa mbaay ndu xaanu léegi si sekk way na ko nee na néegu lu yaas la boo ci xul dañuy génn oustaz oustaz ma laaj la leen na sa ngone sa ngone ñaata nga ma sa maye ngone rek bu dee jaar nga ci wàllum ngoro ñaata nga mayu saas sim saas munu faal tax na ma soo da jaag fa sama rek mais li dof nday doon wax naan guuti si nga jël ak kaar ak karam ku la ndax yow man jël laa jëm may moo ñëw saagawuma <laughs>